أعوذ بالله بسم الله الحمد لله wasalaatu wasalaam ala rasulillah seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi ñuy topp ci seen youtube bi ñu tudde xel du doy tey bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dokkeel bu baax ci weeru màgg bi mu ñu nekk lépp luñ ci jaam yàlla nañ ko yàlla nangul xam naa ñu ñëw ak yéen rek ci suñu bindu tey mottali suñu mawdu ba léegi ñu ngi ñëwoon ci mawdu sawm mawdu sawm indi woon nañ ci ba suñu dernier bind ñu ngi ñu ngi jëloon as-sawmul ma'muur as-sawmul ma'muur ndax dafa nekkoon ñaari xaaj sawmul ma'muur wa sawmul al euh, manhiyu ma'muur jëloon nañ ko ba détaillé ko ba mu jeex ñu war a dugg ci sawmu al nahyu waaw as-sawmu nahyu insha allahu taala ani sharia lan mooy koor ci sharia waaw lan mooy koor gi ñu tere lan moy koor gi ñu tere ci sharia insha allah taala moy suñu suñu bindu tey asawmul asawmul manhiyu shar'a wa huwa khismani waaw koor gi ñu tere ci sharia da fay nekk ñaari xaj momit da fay nekk da fay nekk ñaari xaj sawmu muharram wa sawmu makruh koor gi nga xamni ne dafa xaraam koor li muy dagan dagan li muy am am solo li muy bëri bëri tuyaaba am na koor yoo xam ni dafa xaraam waaw mu ne la nag ñaari xaaj la ñaari xaaj yooyu benn koor bi dañu ko xaraamal dafa xaraam jullit bi woor ko beneen bi ci des dañoo sib jullit bi woor ko asawmul mahrum wa sawmul makruh asawmul mahrum wa huwa wa dalika mithlu sawmi yawmi al-iid sawmul mahrum koor gi nga xam ne dañ ko xaraamal mooy nga woor bisu iid ni ki korite ak tabaski waaw ni ki korite ak tabaski dafa xaraama woor koor di bëri bëri solo di bari bari ay njëriñ di bëri bëri ay tuyaaba xaraam na yow jullit bi ngay woor ci bisu iid bisu korite wala bisu tabaski xaraam na jullit bi di ci woor kon loolu mooy asawmul mahrum koor gi nga xam ni dañu ko xaraamal wasaani bu ñaareel bi saw sawmu makruh am na koor goo xam ni boo ko wooree dañu ko sib waaw saa boo ko wooree def nga lu ñu sib waaw boobu koor mooy ban wa dalika mithlu sawmi yowmi arafa lil xaaj waaw koor gi nga xam ne dañ ko sib mooy nga woor yow jullit bi bisu taxawaayu arafa nga woor ko fekk yow dangaa aji màkka amma yow mi nga xam ne aju aju woo nag man nañ ko bañ sip ci yow waaye ki nga xam ni dafa dafa aj danoo sip ci moom muy woor bisu bisu arafa waaw sawmu makruh wa dhalika mislu sawmi yowmi arafa dafa mel ni nga woor weeru nga woor bisu arafa lil xaaj ji ñeel ki nga xam ni dafa aj waaw ñeel ki nga xam ni dafa aju màkka sip nañu ci moom muy woor bisu bisu arafa waaw kon loolu mooy yi nga xam ni koor yi nga xam ni koor gi nga xam ni dafa xaraam ci jullit bi mu wor ko ak koor gi nga xam ni danoo sib jullit bi mu wor ko indi woon nañ leen yi nga xam ni dañ ko sopp yi nga xam ni dafa dagan yi nga xam ni waajib la yi nga xam ni makruh la waaw ba tey ñu ëgsi ci yi nga xam ni dañ ko tere yi ñu tere nag mooy makruhaat wala wal muharram waaw li ñu xaraamal ci yow ak li nga xam ni dañu ko dañ ko sib nga def ko mu mel ni xam naa kon loolu mooy mawduu yow mawduul yowm insha allahu taala suñu temu tey dafay nekk rek ci ñaari tomb yooyu waaye ñu idaafa ci benn ruwiya boo xam ni waaw benn xikaaya euh, ruwiya an ahadi saalihayni fi sawmi euh, solo nan wala jële nan ci benn ci way euh, gaa yu baax yi nga xam ni boroom xikma yi nga xam ni du ñu deñ di jàngal doomu aadama yi nett li nan ni laysa sawmu sawmu jamaa ani taam Muni ben hikaya mu wax mu nettali ni so koor nekul ni rek da ngay wor ngir lan da ngay wor dajalo ñepp wor rek ngir lan wëlis wëlis lek ak naan waaw maanaam di wor ba ngir rek bayyi lek ak naan neena na koor du lolu rek waaw wa inama sawm sawm euh, wa inama sawm sawm jawarih anil asam nee na koor daal dëgg-dëgg koor mooy nga sàmm say cër waaw sawmul jawaarix mooy nga woorloo say cër sa mooy nga sàmm ko rek muy loxo bi muy làmmeñ bi muy bët bi muy lépp nga sàmm say cër sawmul jawaarix mooy nga woorloo say cër nga woorloo say cër anil atham wëlis mooy nga woorloo say cër wëris wëlis mooy sa loxo doo ci mooy yàlla sa bët doo ci mooy yàlla sa bakkan doo ci mooy yàlla sa tànk doo ci moy yàlla nga tek ko noonu ba cër jeex yep lolu moy koor bu complété kon koor gi nekul ni xiif la ak mar rek dede wa muni yamul ci nga woorloo sey ci waye wa sumtu al lisan wa sumtu al lisan an fudul al kalam nga tey sa làmmiñ ba do ci wax li nga xamni moy waxi fawda wa waxi kasaw-kasaw wax ju amul ben njëriñ amul ben faida loolu lépp dañ koy tereel ki nga xam ni dafa woor yow mi woor dañu la tere ngay wax waxi caaxaan waxi mbóorantu waaw yooyu yëpp dañ koy tere ki nga xam ni dafa woor kon nga xam ni kon koor gi da ngay woorloo sa làmmiñ tamit waaw waxadul ayni an nadari ila al xaraam nee na tam nga damm sa bët damm sa bët pour lan walis xool lu xaraam damm sa bët ba doo ci xool lenn loo xam ne lu xaraam la lenn loo xam ne lu ñu cible la loolu tam dafa bokk ci koor gi yow mi nga xam ne da nga woor na nga woorloo sa bët doo xool mukk sa sa ñaari gët yi doo ci xool mukk lu xaraam doo ci def mukk doo ci doo ci doo ci xool lu xaram hmm? doo ci xool lu dul rek lu baax sëgg ci sa téere ji jàng jàng alxuraan nekk sa kurus di def ay istixfaar waaw hakada ba tey muy da ngay woorloo say ñaari yoxo sa ñaari loxo da nga leen a war a woorloo comme ni nga woorloo sa biir waaw waaw wa kafful kaffi an ahadil xutaam nga woorloo say loxo maanaam nga fekk sa ñaari loxo wëlis wëlis jël loo xam ni lew la loo xam ni moomoo ko ci poñu xeti àdduna yi rek waaw kon da ngay fekk say say tënk ba doo ci jël mukkuloo moomu doo ci doo ci lore doo ci def naka su dul noonu doo ci jël doo ci def lenn loo xam ni dafay delli ci poñoxiti àdduna waaye looy def ci say loxo rek danga koy def muy loo xam ni ibaada la jaamu yàlla rek waaw ba tey wa manul aqdaam an xabixil iqdaam nee na tam na nga fekk say say dëggu sa tànk yi na nga leen di woorloo na nga leen di woorloo mooy nga téye leen walis dox loo xam ni dox doxu caaxaan la dox bu amul benn njëriñ amoo ci yàlla amoo ci yenente waaye dox ba bu sottee la ngay dox sax bàkkaar la lay jural kon nee na na nga ko way na nga ko moytandiku woorloo say tànk ba doo ci def lu lu dul euh, lu dul jaamu yàlla dem ci woote diine ba dem ci yàkka ja dem ci place ba nga xam ni dañ fay tafsir alquran dem ci dem ci ci béréb yi nga xam ni doo fa am lu dul yàlla wala doo fa yaakaar lu dul yàlla waaye doo dox mukk doo jël mukk say tànk di ci dox loo xam ni doxu caaxaan la doxu kasaw kasaw la Euh, dëppoowul sax ak weeru koor lu dul weeru koor sax jaaduwul ci yow kon nee na boo wooree tam na nga woorloo say say ndëggu ba doo ci dox doxi caaxaan xam naa kon ñu tegal di foofu suñu suñu baaraam rek di leen fàttaliwaat rek di leen wax ni daal koor du xiif ak man rek koor ba wooroo wooree ci sa biir joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan ni ki noonu na nga woorloo sa bët woorloo sa bakkan woorloo sa làmmeñ ba doo ci wax naka su dul noona waaye na nga noo say loxo ba doo ci jëf doo ci def lenn loo xam ni nag a sutul noonu la